soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. loola moom du ma sa am mukk mukk mukk wala saa jëmm ji du ko fekkee. wala saa joj. feeg noo ngi dese ay xel. ak ak i bët ak ah loola du am. bu doon raamit bu may walañu di ko di ko di ko tëri ko tëri. buri latir de. Hmm. kenn yabalu ko fa hmm? xam naa daal ay mbirum boppam la Latir daal kanamam gii doo ko face à face à face ba kenn ñemewut a wax ak moom ma ko de ñaaya yaa ngi ci liggéey bi waaw gis nga de maa ngi ñaagaat fii de waaw noonu la sax toppale bant yi dafa xaw a taq waaw moo tax ma gont fii nii de noonu la waaye bëggoon naañu waxtaan ah. dégg naa da nga doon xuloo ak euh, latir lan moo waral loolu magum dëkk naam yaakaar ñëwub latir bi daal dem kurus, rek laa ci gis yaakaar naam ah loolu de man sama xel dalu ci benn yoon hmm. xam naa ci leen de li ma la waxoon rek moom laay defaat latiir ci digg dëkk bii tey laa ko gën a mën a lunjut dinaa ko seet dinaa ko wër ba xam li nekk ci biir man mii maa koy dox. li nekk si biir lëndëm na li olof njaay naan luus na luus la ba sëb la nag la ko bënd ngi si biir. Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble.